Cheikh Abdou Lahat la ziyaare la fekk la fi ci buntu Daaray Kaamil diggante Cheikh Abdou Lahat mbokk yi mbokk noonu islam. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa waar wi TV noo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal. waa sëriñ Abdou Lahat day moom li ci sëñ Xaadi wax léegi daanaka doy na sëkk. Euh, ndax nit buñ koy fàttaliku ginnaaw ñaanal ko dara ëpp ci solo roy ko. moom nag dafa nekkoon royukaay bu mag boo xam ne anam yëpp fànn yu bari mënees na koo roy ci moom la ci jiitu li sëñ di wax léegi waaye itam nag fi jamono toll day ku mag ñi mën a roy di ku ndaw ñi mën a roy mag ñi mën nañ koo roy ci e, jiite en tant que njiit jiiteb dëkk jiite kër njiite ab tarixa lu ci ne waay la ci danaa ci dellusi ndaw ñi mën nañ koo roy ndax ndaw lu roy Sëriñ Abdou Lahad da nekk ndaw lu am jom lu am kóllëre lu am njàmbaar ndax da daan wax ne su ma naree tas sama yaakaar yi baay booba jant yàlla bu ma ko fekk ndax sëriñ Abdou sëriñ bi dafa waxoon ne am naa ci moom yaakaar mu yaakaar jooja nag waxtu jant bu mu ko nammee tas rek bu mu ko fekk kon royu royukaaya ngoog bu mag ngir ndaw ñi ndaw ñi bu ñu fexe woon ba bañ a seen yaakaar yi bàyyi danañ liggéeyal seen bay liggéey bu rëy lam waxit ne yaar yi waxtu wu ko nit euh, manqué rek waxtu mu yégee ne amu ko rek bu dee ci suba la na fexe ba balaa ngoona bu dee ci ngoon gi na fexe balaa jant beesu mu am ko muy jur ak kilifa loola waral ba mu koy wax loola ndaw la bi fi sëriñ bi jógee mu ne nag moo waral mu daal di jël sëñ Cheikh Mouhamadul Moustapha def ko muy kilifaam jël sëriñ falu def ko muy baayam loolu ndaw yi war nañ cee jànge kon kilifa mun a ñàkk mu doon it ku bëgg xam-xam béréb bii ñu taxaw rek misaal la ci bi mu ñëwee liggéey mu liggéeyal sëriñ bi ci wetu xam-xam fekkoon na fi ay daara fekkoon na fi ay école mu jàppale daara yooyu dëgërël leen école yi itam mu suqali ko ni ko école wu sëñ Cheikh Gaynde Fatma Cheikh Mamadou Mourtada Mahadou Cheikh Khadim ak Al Azhar ak yeneen écoles yi Daarul Alimil Xabir fu ci ne daara yi mu dëgëral ko di fa yóbbu ab dund di leen jàppale waaye itam nag naal naal wu rëy woo xam ne nag daara joo xam ne moom fu daara daaraa la dara ci daara ju ndaw ba ci jumag dee seetu ko mën a génn yaakaar naa fi nu toll nii naalam woowee ca la ñuy dox nii di daw ba léegi jeexal guñ ko mooy université bii nga xam ne euh, sëñ Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér na ci fanweeri milliard ak juróom-ñaar ca naalub Sëñ Abdul Ahad la woon kon wetu xam-xam wet googu itam ndaw ñi gën a góorgóorlu ci sàkku xam-xam jàpp naa ne royuwaay la bu mag ci loolu bu dee ci noonu nga ko waxee relation bi nga xam ne eh, am na ko ak kër diine yi muy alaaxaat yooyu daf ko tàmbalee fii ci yoonu murit muy ñi mu bokkal sëriñ bi dafa wax ne liggéey yi muy liggéeyal sëriñ Tuubaa wet googu ca la bokk muy magi barsaq yi ñi sëriñ bi yoroon ak njabootu sëriñ bi ci boppam Euh, euh, jàppale gum leen jàppale jàppee leen itam ay doomi sëriñam di leen toppatoo di leen hadiyal ak magi bar sàq ñi tabaarakallaa liggéey yu rëy yum ci def yoo xam ne loolu rek doy na waxtaan bu dee ci wàllu turuq yi seq na kook ñoom ñëpp ñëpp fi daan ñëw waaye itam mu daan solo daalam daal leen seet si Alaaji Abdu waa Njaasaan waa Canaba euh, fu ci ne dem na fa toog fa waxtaan ak ñoom rafetal bokk gi ba noppi woo murid yi ngir ñu rafetal bokk gi insisté ci daana wax ne euh, murit ak tiijaan ak xaadir ak laayan euh, nee na kenn wërta wax ci morom ma lu warut ndax nee mu ngi mel ni ñett ñu bokk ndey ak baay su ca kenn bëggee tam morom ma bàyyi ka ca des daa yeewut waaye ñoo bokk lépp loolu jàngale na ci jokkalante na ak ñoom ay jëflante yu rafet joxalanteeg ñoom ay way alaaji Abdou def na ci moom ay way yu am solo mu delloo ko way ya moom itam dundal bokk gi dégg nga euh, loolu wet googu doy na ci sëkk royuwaay kon daal si Abdou Lahad ci gàttal ci tënk royuwaay la boo xam ne ngir ndaw ñi ngir mag ñi ngir jullit yi ngir umma islamiya bi ngir àdduna bépp kon yaakaar naa ci tënk rek euh, yàlla na ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas nu ci barkeem te uh, Serigne Sidi mi nga xam ne moo ko fi nekkal di taxawee bis bii di waaj a ñëw di sàkku it ci mbokk yëpp ñu lu ñu mën ci ay ñaan ñu dolli ko ko di ko dale ci alxuraan mi nga xam ne moo doon bëggam lu ci waay man mu jàng ko addiyal ko ko xasaay di Serigne Touba yi salaatu ala nabi lu waay man rek mu defal ko sëñ Abdou Lahad ko ko nu àgg ca bis baak jàmm nag te Serigne Sidi mi ko fi nekkal yàlla yàggal ko fi te dëgëral ko ak mbokki rakkam àggaleel ko yéeneem ji mu bëgg liggéeyal te nu ànd ko moom jërë ngeen jëf